sëy bi doxoon ci diggante wee ak liggéeykatam boo moytuwul ci tas la jëm moom kërug yónnee ak jot xaalis googe liggéeykat yi nga xam ne rek ñoo fa nekk ci nekkee ci diggante Touba ak Mbàkke ay jafe-jafe yu ni jànkonteel ba tax na nag jamono becci seen i jafe-jafe ni moo fi dajale képp kuy def transfert au niveau du département de Mbàkke Mbàkke Touba li ko waral moo dafa am lu xew ci secteur bi xam ne moom la nekk muy transfert ñu am ak problème ak benn opérateur bu ñuy wax Wave ba ñun ñëpp ñi nga xamante ni ñooy def tey transfert danoo décider na dañuy boycotter suba Wave dafay ñëw ànd ak ñun di liggéey ah ñu jël suñu yaakaar yëpp jox ko indi suñu xaalis mu indi plateforme ñu ànd di liggéey ñu yar ko ba mu màgg. tey nag peut-être jàpp na ne terrain bi moo fi nekk. yooyu la jafe-jafe bokk ci itam la ñuy tuddee commission di lu ñu war a jot képp ko xam ne yónnee nga mbaa nga jot xaalis loolee nag ñu jàpp ne kërug yónneekaay ak jot xaalis googee di weef da leen koy xañ tey nag loolee duñu ko nangu. commission yi ma leen daan jox maanaam li ma leen daan fay dinaa ko wàññi ñu ne ko nag loolu du si dal loolu moo waral daje bi tey wàññi boobu nu mu demee dañu daan jox. client boo xam ne ñëw na sab bureau def transaction maanaam def opération boo xam ne ci Wave la koy dugal client bu ci nekk daan nañ si gagné cent franc mu tuddee woon ko bonus te ñun sax bonus arrangé wuñu soxla wuñu bonus dañuy liggéey ñu ñuy fay loolu ñuy liggéey cent franc yooyu ñun moom lañ ci daan gagné la majeure partie de commission bi cent franc yooyu moo ko daan complété kon tey bu taxawee ne day dindi cent franc client client boo am cent da koy dindi ñun loolu ci lañ ànd si. te duñ ko nungu tey duñ ko nungu ëllëg lu mu ko jaral jaral nañu ko. ba tax na ñoom ndawi liggéeykat yooyu jamono ji nag jëlub dog ni nag suba ci ñeenti fan ci weeru décembre atum 2020 du ñu faste xànc ak morom ja. danoo décidé na dañuy boycotté suba ñeenti fan deux mille 2020 dañuy boycotté lépp loo xamante ni transaction la boo xam ne danaan jaar ci. ci plateforme Wave. yooyu la jafe-jafe ngir bañ nag seen ay client dund ko ba tax na ne que jamono di xam la ne kër googee day ko fa am ab xaalis yóbbu nga génne ko lu ko mooy di ko ñàkk. danoo am ñoo xam ne ñoo seq ak ñoom terrain bi muy les clients nga xam ne ñoo yor liggéey bi lu ëpp solo ñoom ñoo tax ñu koy def ñu nekk suñuy partenaire ñoom tamit ñu ànd ak ñoom lu yàgg lool avant Wave di ñun ñëw ñun ak ñoom la woon tey bi Wave ñëwee ñu ak ñoom la ëllëg bu Wave demee tam ñu ak ñoom lay doon. ñooñu loolu leen bëgg a informer xamal leen ne ci lii ñu jëm nii danoo séq ab liggéey ak Wave te gisatuñ suñu bopp ñàkk sa gis suñ bopp googu nag moo tax dañuy bank suñu loxo dañuy def ab taxaw seetlu ba jëmmi jamono taxaw seetlu boobu nag suba lay commencé si ajuma bi ñeenti fan décembre 4 décembre 2020 kon ñoo koy xamal client yëpp que képp koo xamee nii yor nga sa xaalis sa biir compte na nga gaaw dem dindi ji ko ndaxte ñun ñooy fay te fayatunu mënatunoo continuer di fay ci condition yu mel nii kon nag képp koo xam ne ñi ngi lay yónnee xaalis bëgg koo jaarale Wave nee ko bu ma ko Wave moo gën a wér bu ma ko Wave Wave daa wax ñu Wave ma ko ñun danaan bu ma ko Wave loolu la ñuy wax clients yi que xamal ne leen xeex bi ñun nag ñoom ñoo ko war a ànd lu ëpp nag fukki junne ak ci ay liggéeykat yoo xam ne ñoo nekkee ca googale ko fànn jamono ji di tàllal loxo nguuru Sénégal ngir ñu wàllu leen ci buumu njaam gi ñu jàpp ne dañu leen ko takk mu nekk nag jafe-jafe goo xam ne itam ñu ngi koy jànkonteel boobaak léegi tey nag yëkkati kàddu di artu di xam ne ne xeex bi luñ ci bañul ñu ko ci